di wax ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di jiital ci nuyoo beeg siyaar bi nag sëriñ Muhammadin al Muntaqa di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàggal ko ci jataayub sëriñ Tuubaa bi nga xam ne moom la tooge waaye itam sàmm ko defal ko wér ak tal ak man ba li mu yéene def lépp rek ci yoonu maamam ji mu def ko na mu ko bëggi di nuyoo ko siyaar bu baax a baax sëriñ Ahmadinil Muxtaar mi nga xam ne tey moo toog ci ëttub Cheikh mu Moustapha di ñaan yàlla subhaanahu wa taala gën koo dëgëral yokk ko wér talak man waaye itam noonu la ñuy siyaaree bu baax a baax sëriñ Cheikh Mbacke Madina mi toog jotaay bi sëriñ Mbacke Madina ak mbooleem buntu kër yi nga xam ne ñooy buntu kër yi cheikh Mouhamadinil Moustapha di ay xalifa yi nga xam ne ñoo wuutu seen waajur ci kër gi di daarul xudus ñu ngi siyaare ñëpp di siyaare taalibe yëpp bàyyiwuñ kenn tey nag noo ngi fii ci ëtt bu tedd bi ëtt bi nga xam ne mooy darul xudus te mag ñi daan ko tuddee kër yàlla te sabab ba du dara ludul dul wéetal gi nga xam ne moom la fi xadimal Moustapha daan wéetale boroomam ci biir kër gii ñu nekk tey nga xam ne kenn dëkku ci woon lu moom rekk moo fi daan ñëw di fi wéetal boroomam ku mu fi woowut doo ko fi fekk kon kër googu tey ci lañu toog ngir waajtaay waajtaay wan mooy waajtaay wi nga xam ne la Sëriñ Tuuba Mbàkke gënoon na bëgg ci àdduna muy dëkk Tuuba te yàlla xañan ko ko ci ay natt yoo xam ne teg na ko ko keroog ba nga xamee ne wàcc na ab liggéey nag taawam bu mat ba bu baax bu tedd ba bu am jom ba am ngor ga defal ko mu gën a bëgg te mooy indi ko ci Touba te xaddamu muy Cheikh Mouhamadinil Moustapha bis boobu yi nga xam ne nag moom la ko indi woon fii bis booba mooy jublu si Daaru Xuddoos gépp di ko waaj te it waajtaay wañ koy waaj noonu la ware yoonu murit wépp ndax suñuy tudd ab murit Xadimul Moustapha moo tax ñu tudd la waaye su doonutoon moom kenn du la tuddee ab murit kon bis bu toll nii bisub Serigne Touba boobu nag yaakaar naa ni dañ koo moomale Daaru Xudoos waaye yoon wépp la war a doon seen bis boo xam ne saa yu ñëwee dinañ laxasaa yu ñoom ñëpp ànd ak waa Daaru Xudoos ci bis boobu kenn ku nekk xam ne la la Serigne Touba defal wuute nag lam defal keneen te it soo wëlbatikoo rek xool sa bopp xam lim la defal di nga xam ne war ngaa taxaw bu baax a baax bisam bi loolu nag tax ba commission culturelle lu diwaan bi muy diwaanul muridina fi xidmati xayril alamin booleem kër yi nga xam ne ñooy këri daaru xudduus yi ñoom ñoo ko seq loola tax nag tey ñuy waajal bis boobu mu mel ni nag sëriñ muudu moo ko njëkk a woote woote gam ko woote itam dara taxutan rek lu dul wéyal ndigalal xadimal Mustafa li nga xam ne moom moo ko santoon te sëriñ Cheikh Diop Taïf doon ko wax léegi ci sëriñ Makhtar Diop mi nga xam ne moo dëkkan Kaolack te nettali ko xam ne sëriñ Tuubaa moo ko santoon sëñ Muudu Moustapha radiyallahu anhu loolu nag ba mu ko ko santee ba sëñ Muudu dajale ñëpp ba wax leen nañ koy defee ak na mu bëgg mu mel ba mu rit yépp xam ne ka jëf jii mooy jëf ji nga xam ne moom la sëñ Muudu soxla woon nit ñi def ko loola nag ba mu dellusee nag ca déwén sa ba mu toogee ak nit ñi da leen a dénk dénkaan yooyu nga xam ne moom la sëñ Muudu daan dénkaani ci bis yu mel noonu dénkaani yooya lañuy jël rekk benn ndénkaan ci ndénkaan yooyu su ko defee ñu leeral ko nit ñi ñu xam ne kat sëñ Muudu mësta bàyyi lenn mu nguyaay saa yu dajee ak murid yi saa yu dajee ak taalibe yi wax na leen delloo na leen ci seen boroom radiallahu an xutba bii nag muy ndénkaan bi nga xam ne moom lañu ñu bëgg leeral mooy ñeenteelu ndénkaan ci euh, nekkuk Cheikh Mouhamadul Moustapha mu defan ko ci pàkk bu tëdd bi nga xam ne mooy Daarul Xuddus bi mu fi woote màggal gi sëñ mu dafa tàmbali ndénkaan ba ci sant yàlla alhamdulilahi rabbil alamin mooy sant ki nga xam ne ku sant ku nekk moo tax nga sant boroom bindeef yi nga xam ne képp ku yàlla bind moom moo moom yaa xam nga nangu ak nga gàntu waaye mu tëj ca wasalaatu wasalaam ala alhaadi al amin wa alihi wa saabi ajmain daa di julli ci ngën gi yoneen sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne képp ku jub moo la teg ci yoonu jub wam la teg ndax yàllaa ko teg ci yoonu jub ba pare digal ko ne ko nag yoonu njub woowu teg ci ñëpp ba mu defee loola nag te mooy salaatu ala nabi ba pare def alhamdala sant yàlla ba pare nag ki la jàkkaarloog mbooloo mi nag daal di leen wax ni eh yéen mbooloo maa ngi leen di nuyu nuyub islaam mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. daal ni e yéen mbokk yi maa ngi leen di jàmmal jàmm ju mat sëkk waaye nag maa ngi leen di xamal ni man de maa ngi sant sama boroom bi nga xam ne moo boole ak yéen te ngeen nungoo topp ci sama ginnaaw di jëfe samay ndigal di bàyyi samay tere. kon boroom bileen tàggat ba ngeen nangu loola ci sama ginnaaw maa ngi koy sant ci yéen waaye di leen ko sant le yéen itam daal wax ni ginnaaw lool maa ngi leen di seereel ni yàlla day kenn dong la amut ñaar amut ñett maa ngi koy sant sant goo xam ni sant gu baree baree bari la gu amut ab yem li tax ma koy sant nag mooy seen daje gii ngeen daje tey fii ci pakk bu mag bii di pàkkub Daaru Xudoos lu tax ngeen daje ci mooy man maa leen fi woo ngeen daje fi lu tax ma dajale leen fi sëriñ Mudu nee na dama bëgg rekk fàttali leen ngeen fàttali ko waaye dama bëgg rek ñaana leen nun ñëppit ñu tàllal suñuy loxo ñaan suñu boroom ci suñuy ñaan yàlla nag day fekk ne dañuy jëf jëfal jëfal li nga xam ne mooy ay ndigalam nu jëfandikoo ko ndax borom bi subhaanahu wa moo wax ne wa dakkir fa inna dikra tanfaul muminin ya suñu borom nee na ndëkk waaye dee leen fàttali ndax fàttalikat dina jariñ aji gëm ji te suñu borom moo wax ne aduuni astajib lakum wax ne suñu borom moo ne leen ma su ngeen ma ñaanee it ma may leen looloo tax sëriñ Mudu nee na maa ngi sakku ci moom subhaanahu wa taala la may sàkku ci moom nag mooy mu jéggal ñu ñun ñëpp waaye it jéggal leen yéen ñëpp itam waaye suñu borom itam jéggal mbooleem ku ma sa wax laa ilaha illallah muhammadan rasulullah te ba nga koy wax muy ngëm gu dëggu ci sa biir ab xol moo xam ngay góor moom xam ngay jigéen wala sax da nga aggut ci ngëm gu dëggu googu waaye doon nga jullit bu góor ba tax nga wax ko waaye doon nga jullit bu jigéen ba tax nga wax ko sëriñ Mudu nee na maa ngi ñaanal yàlla njéggal googu jullit yi nga xam ne ñi ngi ci kaw suuf di dund nii waaye itam maa ngi ñaanal yàlla njéggal googu jullit yi nga xam ne ñu nga ca àllaaxira féeru di xaar seen borom yowmal xiyaam taxaw waaye itam maa ngi ñaan yàlla mu dolli ñu te dolli leen ak njàppandal ci lépp loo xam ne moom ngeen di dugg waaye itam defal leen li nga xam ne mooy jikko yu rafet waaye defal leen ak mucc tey waaye defal leen mucc goo xam ne da leen di topp ak yërmande ba ëllëg yowmal xiyaam waaye defal leen jàmm ju sax dàkk waaye nag mu teg ca ni summa inni usikum walaw ak akun ahlan li dalika xayra anni qaddamtu nafsi bi taqwallahi taala wa taatihi wal amala bi sunnatihi bi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Mudu nee na ginnaaw loolu maa ngi leen di dénk bu baax a baax doonte xëy na ndénkaan lii ma yëkkati di leen dénk man sax waruma ndax duma kenn ci yéen ku du taalibeb Sëriñ Tuubaa rek laa ni yéen kon kay jiital gima ma yàlla jiital ci seen kanam rek moo tax ma di leen dénk lii ma leen dénk waaye lii ma leen di dénk itam na ngeen xam ni sama ji boroom sama bopp laa ci jiital te la ma ca jiital sama bopp mooy maa ngi dénk sama bopp ak ragal yàlla di leen ko dénk di leen dénk topp yàlla ni nga xam ni noonu laa fas yéenee nekk ci seen kanam di topp yàlla subhaanahu wa waaye itam maa ngi leen di dénk jëfe sunnas yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ni nga xam ne noonu laa fas yéenee ànd ak yéen di jëfe sunnas yonent bi sallallahu alayhi wa waaye sëñ Mudu nee na seen borom nee na rik waay wala taxurannakum alxayatu dunya wala yaxurannakum billahi alxaruur rik waay dund ak àdduna gi nga xam ne ay natax natax rek la leen di wan aki i naat naat te du dara rik waay dund ak àdduna gii maa ngi leen di bàyyiloo xel bu mu leen war mukk tey rikk waay fexe leen ba saytaani moom bu mu leen war bay dox seen diggante ak seen borom bi leen sàkkan ngir ngeen jaamu ko lu may ngeen topp saytaani di moy seen borom rikk waay bu leen saytaani def lool sëriñ Mour wax ni waxlamu anna kulla xayin siwaaw yasiiru mamaatin wa fi kulli binain yasiiru ila xaraabin li anna dunya faaniya wa kullu man alayha faan sëñ Modou nee na rek waay yéen mbooloo mi toog fii taxaw fii tey di ma déglu na ngeen xam ne bépp nit buy dund wala lépp luy dund ci kaw suuf lu dul sunu borom bés dina ñëw mu faatu ni nga xamee ne bés bii nga xam ne tey moom la ñuy taxaw ki nekk nag nun di xadimal Mustafa di suñ lépp borom bi jële na ko fi noonu mu ko fi jële woon nit kenn du fi des noonu lañu fi jëlee te du sunu borom rek di nga faatu waaye itam na ngeen xam ne tabax lu mu rëy ak lu mu dëgër dëgër ak lu mu màgg màgg ci ràpp rek lay mujj te it na ngeen xam ne àdduna day day jeex takk te it képp koo xam ne yaa ngi ci kaw àdduna wala ci biir àdduna di dox na nga xam ne dangay jeex yow itam waaye sëñ Mudu nee na seen borom nee na wattaqu yawman turjauna fihi ila allah rikk waay na ngeen teet ragal bés ba nga xam ne di ngeen dellu ca seen boroom su keroogee nag seen boroom day dina leen laaj la ngeen doon def ci kaw suuf lu mu doonan ndax santaane ba ma leen santan yéen a nga ca wala ndax tere ya ma leen tere woon bàyyi ngeen ko sëñ mu ne kon rek waay teet leen bis booba te it rek waay seen sëñ mu ne seen borom nee na bis la boo xam ne day yow ma yafirrul mar'u min axiihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banii li kulli mri'in minhum yawma isin sha'nun yughni sëñ Mudu nee na seen borom nee na rikk waay na ngeen xam ne bis boobu day bis la boo xam ne ñëpp danañ dawante ndax nit dina daw waajuram wu góor di daw wu jigéenam dina daw mbokkam mbokkam di ko daw waajuram di ko daw teyit ak njabootam ci boppam dinañ ko daw moom mu di leen daw sëñ Mudu ne seen borom nee na keroog day jëmm ju taxaw yowmal xiyaam am nga mbir mu la doy sëkk moo xam ne moom ngay lijjanteek sa boroom ndax dangay jàpp ne kat tey fii ma nekk mënuma fee mucc benn yoon kon nag sëñ Mudu nee na seen borom nee na ngeen moytu bis boo bii xam ne kat bis bu màgg la ku ci nekk am na lu la doy waaye mu wax ne seen borom nee na yow ma tujuzaa kullu nafsin bi ma kasabat laa zulmal yawma hunaak sëñ Mudu nee na seen borom nee na bis la boo xam ne day dinañ fay ku nekk la nga doon jëf te seen borom day du tooñ kenn keroog ku ci nekk la nga jëf rek loolu la lay jox waaye sëñ Mudu nee na seen borom nee na man amila saalihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha mu wax ne képp ku jëf lu baax nanga xam ne sa bopp rek a tax nga di ko def keneen taxut nga di ko def waaye itam képp ku jëf jëf ju ñaaw na la leer naññ ne du la mooy ndax kat lépp lu waaye def ci kaw suuf muy lu baax da nga ca jot waaye loo def ëllëg ci ab safaan da nga ca jot ndax kat sëñ Mudu nee na seen borom nee na wa wajadu maa amilu xaadaran su kerooge ku ci nekk ci yéen dina fekk la nga jëfan ca sa kanam mu teew fa te mënoo weddi mukk ne jëfoo woon la inna allaha la yadlimu naasa shay'an walakin annaasa anfusum anfusum yazlimun sëñ Mudu nee na seen borom nee na man day ëllëg man mi leen sàkk amul jenn jëmm benn jaam boo xam ne fas yéene naa koo tooñ déedéet waaye kay xanaa jaam yi kay ñoo tooñ seen bopp ba tax la ma leen santoon ñu bàyyi ko fa la ma leen terewoon ñu soobu ca def ca ku su keroogee nag kon lu lu dal waay na xam ne moo ko jëf waaye yàlla moom tooñu kenn sëñ Mudu nee na seen borom nee na wattaqullaha alladi ilayhi tuhsharuun rek waay ragal leen seen borom mi nga xam ne ak lu mu yàgg-yàgg dina leen fang dina leen màng teg ci kanamam ku ci nekk ñëw teew ci kanamam te doo mën a rëcc euh, benn yoon sëñ Mudu ne huwa almaliku dayyaan wa huwa bi ibaadihi xabiirum basir moom day mooy buur bi nga xam ne mooy buurab lépp am kattan lool kenn mënu ko rëcc kenn mënta jaar fenn batax tax nga rëcc sa borom boobu ku deñ kumpala amul lenn lu ko ump te it ku mën a gis la jàkk la def lépp lu waay di def dara du ko ci rëcc kon sëriñ Mudu nee na da ngeen xam ne kat seen boroom nee na laa yasalu amma yafalu wa hum wa huwa faalun lima yuridu seen boroom day du laaj mukk lan kenn sañu koo laaj looy def ndax saa yuy def nub ko soobee la koy defee te it na ngeen xam ne kat seen borom mooy def la ko soob ak nu ko soobe sëñ mu du ne kon fa tuubu ilayhi qabla al mawt rikk waay tuub leen dellu ci seen boroom ndax dee ngi ñëw de te it soo gisee kenn mënu ko fanq faw mu dal ci seen kaw kon tuub leen wa daari ko qablal fawt mu ne su fekkee ne sàgganoon ngeen ba am lu leen rëccën ci seen digganteeg seen borom sëñ Moodu nee na rikk waay dabaatal leen loola bala weesu wa baadiru bil amali saalihaat sëñ Moodu nee na rikk waay góorgóorlu leen ba yàkkamti njëkkante jëm ci jëf yu yiw yi nga xam ne moom la seen borom di sant waaye nag wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allahi huwa xayran wa azama ajra sëñ mudu nee na seen borom nee na lépp lu ngeen jiital ci aw yiw ca seen borom di ngeen ko fa fekk mu yiw woo xam ne moom la leen di fulandil te it du ca wàññi dara xanaa kay yokkal leen ko lay def fulal leen ko kon góorgóorlu leen bu baax a baax ci jëf yu yiw yow washkuru nicmatallahi aleykum sëñ Modou nee na ku ci nekk ci yéen taxaw ci jataay bii tey na xam ne am na xiiwal gu ko yàlla defal goo xam ne mënu koo fay boroomam lu dul xanaa mu delloo yàlla cant ci wane ne xéewal gii kat suñu boroom rek moo ma ko defal ngir sant yàlla ca loola kon sëñ Modou nee na maa ngi leen di fàttali bu baax a baax ne yàlla kat faddalakum ala kathirin min xalqihi yàlla mooy ki nga xam ne moo leen sàkk yéen doomu aadama waaye bi mu leen sàkkee am na yeneen mbindeef yu mu sàkk waaye sàkk ga mu sàkk yeneen mbindeef yooyu bari na ci mbindeef yoo xam ne yéen a tax yàlla sàkk leen kon ngëneel loolu yàlla teg ci seen kaw ci seen loxo te defalu leen yàlla dara waaye rikk waay sëñ Mudu nee na delloowaat leen ngëneel loolu yàlla kama axbara bihi fi kitaabil aziz ni ko yàlla waxe ci téeréem bu tedd bi huwa alladi xalaqakum wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum min at-tayyibaati la'allakum tashkuruun sëñ Mudu nee na seen borom nee na mooy ki leen sàkk ca gën gaa rafetu sàkkeen waaye itam moo leen di jox xéewal waaye xéewal gëm leen di jox da koo tànne fa mu gën a teeye mu teg ko ci seen loxo yàlla sëñ Mudu nee na seen borom nee na lenn rek tax mu def ko la'allakum tashkuruun xanaa lee ku defal njekk lu toll noonu sëñ Mudu nee na seen borom nee na xanaa kon day di ngeen ko sant waaye sëñ Mudu ne wa min niami alaykum an jaala lakum samaa wal absaara wal afidata mu ne bokk na ci ngëneeli seen borom moo leen defal nopp yu ngeen di déggee jaam bu nekk war naa sant yàlla bu baax a baax a baax ci suñu waxee kaddu mu dégg kaddu go xam lu kaddu koy wax ndax kat am na jaam bu mel ni moom tol ni moom moyut yàlla lu jar yàlla bañ koo jox ak dégg ba du dégg yow miy dégg defaloo lu jar yàlla yàlla jox la dégg ba dinga nga ba ngay dégg kon sëñ Mudu nee na kon yàlla mi leen defal ak dégg ba ngay dégg rek waay war nga koo sant ci loola. waaye itam yëmut foofu ab absaar yàlla moo leen di jox ab gis ngeen di gis am na jaam boo xam ne am na bët yi nga am. waaye yàlla joxu ko gis googu waaye yow mu jox la gis gi kon sëñ Mudu nee na war ngaa mën a sant yàlla ca loola waaye itam mu jox la ab xol boo yëgee am na mala yu baree bari yoo xam ne lu baree bari duñu ko yëg yàlla nag jox la xol bi boo ko yëgee ba pare mu jox lam xel moo mën a xalaate ba xam lu baax ak lu bon sëñ Mudu ne kon rikk waay delluwaat leen ci seen borom bu baax a baax santaat ko mu wax ne wa min maalumi ضرورة أن الحي لا يستغني عن هذه الأشياء ولا يمكن لأحد أن ينال شيئا منها إلا بواسطة قدرة الباري ولطفه وإرادته جل وعز خير ذلك مما لا يخفى عليكم sëñ Mudu ne kon na ngeen xam ne yii ma tudd fii muy napp buy dégg bët buy gis xel muy xalaat ak xol buy yëg amul benn mbindeef boo xam ne mën naa ñàkk yii ci kaw suuf lu dul su ko ñàkkee ak gàllankoor la koy indil gu mag a mag te it mel na mbindeef mënu koo defal boppam lu dul seen boroom bi leen sàkk moom rek moom moo mën a defal nit ki loola ba jox ko ko kon rikk moom mi ko def te it ba mu koy def tàggul kenn ci yéen defalu leen ko dara lu tax mu defal leen ko rikk waay sëñ Modou nee na kon ci nammeelam googu ak kàttanam googu delloowaat leen ko ci moom mu waxan ne wa min anwaai niami fajtahidu fi imtisaali awamir wa ijtinaabil manaahi mu wax ne kon bari na yeneen xéewal sax yu yoo xam ne tudduma ko ci waxtaan bi waaye xéewal yépp na ngeen xam ne seen borom moo leen ko joxal kon nag fan ngeen war a jaar ba mën a jëflanteeg seen borom ca loola ba mu sant leen ca mooy li mu leen digal ngeen di ko jëf ci seen kem kàttan waaye limu leen tere it ngeen bàyyi lépp ndax lépp lu leen tere rek seen loraange rek ca nekk sëñ Mudu wax ne waalamu anna almanfaata allati fi alawamiri mutajjihun ila almumtasilina wa anna almadarata allati fi almanahi mutajjihun ila almurtakibina laa ila alamiri wannaahi sëñ Mudu ne rek waay maa ngi leen di xamal ne jëf ji nga xam ne moom la nit ki jëf jëf yu baax yi njariñ la cay bàyyi ko ci moom rek lay dellu sëñ Mudu nee na nit ki na xam ne lor yaa kat ci moom dong lay dolli dellu waaye delluwut mukk ca kay digle ak kay tere kay diglee ka tere moom dara du ko ca fekk lu dul la ko boromum digalan def na ko te mooy dee leen digle lu baax di tere lu bon sëñ Mudu nee na kon man digle rek ma ca war digle naa ku jëf na nga xam ne njariñ la ci yow lay wàcc waaye ku bañ a jëf xam ne lor ya kat ci yow lay wàcc waaye wàccut ci man mi nga xam ne man maay digle ak seen borom bi nga xam ne moom mooy digle moo wax ne na ngeen xam ne id alxaaliqu la tanfacuhu alcibada wala tadruhu almacsiya innama amarana biltaaca li yudxilana aljanna wa nahaana an li yunjiina ne na ngeen xam ne seen borom mi amalu ko njariñ dara su ngeen ko toppee yéen ñëppit nag su ngeen bokkan di ko mooy wàññiwu ko dara waaye nag dangeen di xam ne sun borom daal danoo digal ndigal yi ngir ñu jaamu ko ndax ëllëg mu man cee dëgg ba dugal nu aljanna ci jëf yooyu nga xam ne digal nanu topp na ndigal lam nu digal mu dugal nu aljanna waaye it nee na mooy yi nga xam ne moom la nu suñu borom di tere terewunu ko lu dul dafa bëgg rek nu mucc ëllëg ba du nu dem sawara kon sëñ Mudu nee na rikk waay nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mu wax ne wattaqullaha wa aslihu saata baynakum wa li yuhibba kulla ahadin minkum li aqihi maa yuhibbu li nafsi sëñ Mudu nee na kon nag maa ngi leen di dénk bu baax a baax tey dénk sama borom sama bopp ragal yàlla waaye itam maa ngi leen di dénk seen diggante yii ngeen fexe ba rataxal ko defar ko ba mu rafet lool ndax ka diggante jullit ak morom ja rafet rek ca war diggante jaamu yàlla ak moroom ja fexe mu baax rek ca war sëñ Mudu nee na kon fexe leen ba seen diggante yi ngeen di seq muy diggante yu baax a baax diggante yu rafet sa te it mu wax ne la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaan muy jullit bu nekk lam bëggal boppam na ko bëggal moroomam sëñ Mudu nee na kon nii de su ngeen ko defee di ngeen mucc tey te di ngeen mucc ëllëg waaye mu wax ne wa tajaawabu fillaahi rikk waay maa ngi leen di sàkku képp fu fi waay nekk saa yu ñu ko woote jëmale ko ci yàlla fu ñu ko woowee rek jëmale ko ci yàlla sëñ Mudu nee na na góor góorlu ba fekk ka ko ca loola ci yàlla subhaanahu wa taawa taala mu wax na it seen borom ne wa taawanu ala al wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan rek waay leen di dénk ne seen borom li mu leen sant mooy na ngeen jàppalante ci ragal yàlla waaye itam na ngeen jàppalante ci mbaax waaye lépp lu di ak noono rek waaye maa ngi leen di sant bu baax a baax te di leen tere ngeen jàppale kenn ci ak noono bu leen ko def benn yoon mu wax ne wala yuraaci kullu ahadin minkum maa yuxsanu bihi islaamuhu min mawafaqati ahli dawla mu wax ne maa ngi leen di dénk nag lépp loo xam ne nit mu ngi cay dugg ci ñi nga xam ne ñoo bokk ak ñun réew mi ak nu ñu bokkee ak ñun réew mi te soo ca duggee loola du yàq dara dara ci sa diine du yàq dara ci sa lislaam loola mën nga caa jëflante ak ñoom waaye bis boo jàppee ne bis boo jëflante ak moom dara ci sa diine yàqu dara ci sa yàqu sëñ mu du nee na loola moom bu la ca dara dara dara dugal lépp luy defar sa diine ak sa lislaam daal képp ku nekk ci réew mi mën ngaa jëflante ak ci moom sëñ mu du ne waru asaiha wa isaafihim fi ma yuriduuna min matalabihim wa aaraihim maa sabri aljamin ala altaati wa ala albalaai wa qad qaala taala ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون sëñ Mudu nee na rek waay ñi nga xam ne it dañoo jiite réew mi te di nit ñoo xam ne ñoo yor wàllu àdduna yi dee leen jëflante ak ñoom ci njekk li ñuy sàkku ci yéen su fekkee ne bañ koy sakku dara lu yàq seen diini newu ca nangeen ngeen jëflante ak ñoom ca loola ñuy sàkku waaye itam na ngeen ànd ak muñ waaye muñ koo xam ni muñ gu rafet la waaye na ngeen di ànd muñ googu di topp yàlla subhanahu wa taala te muñ ci balaa yi nga xam ne yàllaa ko sàkk di ko wàcc ci ay jaamam bépp jaam boo xam ne balaa wàcc na ci moom sëñ mudu nee na rikk waaye na nga fàttaliku waxi seen borom ji ndax seen borom moo wax ne dinaa leen nattu ci lan ci dara ci ragal ngeen di ragal di tëf-tëfi ma boole léeg nag ñu ngeen ragal waaye dinaa leen nattu ci bekkoor ngeen di xiif waaye dinaa leen nattu ci alal ju yàqu ngeen ñàkk waaye dinaa leen nattu ci ay bakkan may faat seen ay nit waaye nee na sëñ Mudu nee seen borom nee na yi dinaa leen nattu ci su ngeen béyee la ngeen béy du meññ waaye su booba sëñ Mudu nee seen borom dénk leen su booba mooy yàlla nee na bégalal ñi nga xam ne ay muñkat lañu saa yu leen misiba dalee rek la wax mooy nun dey ci suñ boroom la ñu bàyyi ko woon te ci suñ boroom it la sëñ mu ne ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika hum almuhtadun sëñ mu du nee na seen boroom nee na ñooñu mel noonu nga xam ne saa leen nattu dale ñu muñ ñooñu day yàlla subhanahu wa dina leen jox ay xiiwal te dina leen yërëm te ñooñu ñoo ca ñoo topp yoonu njub wa nga xam ne moom la seen boroom rëddan sëñ mu du nee na wala tabtahil ila allahi taala an yujazikum anna xayran wa ma wa wa iyakum dayran fi daarayni sëñ mu du nee na wa tabtahilu maa ngi ñaan di sóobu ilallahi ci yàlla lu tax ma ko ñaan nag di soobu ci moom mooy dama bëgg suñ jataay bi ñun ñi fi teew ak ñi fi teewut te am yéene teewan fi suñu borom fay nu ji ci fay fay nu aw yiw woo xam ne dina doy sëkk te it fegal nu mbooleem lor yi te it nungul ñu tey nungul ñu ëllëg te defal ñu texeg tey ak ëllëg gu sax dàkk te it mu ne suñ boroom mboolem suñ jëf yu nu masa def muy jëf yu ñaaw yàlla soppi ko muy jëf yu rafet حتى نرضى جميعا بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاه كل من له جاه عنده والسلام سن مودو ne loolu nag maa ngi koy ñaan ci barkeb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko bar ñaan ci barkeb képp koo xam ne yàlla jox na la daraja tey ak ëllëg daal di ne wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kon mbokk yi loolu mooy dénkaan bi nga xam ne sëñ Mouhamadul Moustapha defoon na ko ci màggal gi nga xam ne ginnaaw màggal gi mu njëkk a woote ci jumaa ji moom la woote ci Daaru Xudóos ñuy jégglu nag lépp lu ci dëng ñu xam ne matatik doomu aadama la jub gi rek la ñu sàkk woon wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.